tàllal leen loxo yi gën ji mindeef jaara way gën ji mindeef jaara ji njiñ leen bismillahi rahmani rahim inna alhamdulillah nacmaduhu wa nastacinuhu wa nastagfiruhu wa nacuudu billahi min shururi anfusina wa min sayyiaati acmaalina man yahdihi llahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu ala man qaala bu'istu li utammima makarim al axlaq wa qaala aydan laa yuminu ahadukum xatta akoona ahaba ilayhi min waladihi wa walidihi wa naasi ajmain ani sayduna muhammad rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mbokk jullit yi téléspectateur u fkr 92 point com seen soppe seen xarit di kat ne fii ak yéen di nafar ak yéen sunu diine ñoo ngi woon ci Laxdari bi di waxtaan ak yéen ñoo ngi woon ci page 7 tey nag bunt bi nu bëgg jàng mooy faslun fi taharati bunt bi mooy buntu laab faslun aji fasala ji ay wax fi taharati ci laab la jàngale tey ñoo ngi ci page sept yow mi nga xamante ne yaa ngi topp ak di déglu mu ne a taharatu cheikh abdourahman laxdari ma ngay wax xismaani ñaar la taharatul xadasi ak taharatul xabasi mu ne laab xismaani ñaar la tahaaratu xadasin muy laabu xadas lan mooy laabu xadas laabu xadas mooy sobe bi taq sa yére sobe bi taq ci béréb bi ngay jullee ak sobe bi taq sa yaram koo koy tahaaratu xabas tahaaratu xadas bi taq sa yére bi taq sa yaram bi taq ci béréb bi nga julee mooy xabas taharatu xabas boobu moo taq sa mooy bi taq sa mooy bi taq ci béréb bi ngay jullee nga dañal ko ak ndox taharatu xabas mooy xabas xades nag mooy laabu njàpp wala laabu tiim wala laabu sangu set tabaarakallah kon leer na taharatu xadas taxaratu xabas xadas xadas mooy laabu njàpp mooy laabu tiim mooy laabu sangu set loolay xadas xadas xadas xabas nag xabas mooy sa yëre bi walla sa yaram bi wala béréb bi ngay jullee moom sobe nga dindi ko koo laabu xabas kon laab ñaar la xadas ak xabas borom xam-xam yi dañ ko jël def ko benn laab moom xadas ak xabas def ko benn laab ñu ne laab ñaar la ñu séddale ko ci ñaari xam-xam boo jàngee téere yi dañu wax ne tahaaratul baatinatu wa tahaaratu zahiratu baatinatu mooy an tathara an tathara nafs izalati ani zunubi wal maxsiyati wal qata bu fekkente ne laabu laabu bakkan la laabu jëmm la kooku lañ tuddee laabu baatin nee nañ laab boobu mooy génne lu ñaaw lu bon lu salte ak bàkkaar kooku lañ tuddee taxaratul baatinatu mooy bàkkaar dañ ci yow nga sellal sa bakken ci mooy yàlla sellal sa bakken ci naka sodul noonu sellal sa bakken ci jëw sellal sa bakken ci bàkkaar sellal sa bakken ci lépp loo xam ne suñu borom tere na ko kookoo bu njëkk bi tahaaratul baatinatu léegi nag tahaaratu zahiratu ñu def ko benn muy ñaari yi séddale ko ñaari xat tahaaratu zahiratu ñu séddale ko ci tahaaratul xadas ak xabas wax naa la ko xadas xadas mooy laabu laabu njàpp laabu sangu set laabu tiim xabas xabas mooy laabu yaram laa yére laa bu béréb bi ngay jullee tabaarakallah mu ne wala yasiqul jamiu illa bil du wér ñoom ñaar muy xadas ak kabas laa yaram laa yére ak laa bu njàpp ak laa tiim ak laa bu sangu set nee ñoom ñaar du ñu wér mukk wala yasiixu du wér aljamiu ñoom ñaar illa bil lu dul ndox ndox moo xam ne ak taahiri ndox moo xam ne day aji laabal al mu ndox mu nekk ndox bu ñu ndox mu laab taahiri taahiri ismu fail ala wazni fail taahir dafay mën a laabal ndox mi al nekk ndox mu laab ndox mu laab léegi ndox dina laab te du mën laabal ndox dina laab te du mën laabal waaw ndox dina laab te du mën laabal waaw ndox bu ñu jaxase ak boisson wala ndox mu soow biir dina ko nangu di ko naan waaye mënul laabal mënul sangu set mënul njàpp kon dafay laab laab ba pare mën a laabal woo moom mi ngi firi nag ndox moom ni muy mel allazi mooy ndox ma nga xamante ne lam yataxayyar lam yataxayyar du soppeeku mukk law mukk lawnuhu sa couleur ah li tubaab di wax l'eau doit être incolore inodore sans saveur incolore inodore sans saveur l'eau potable doit être incolor inodore et sans saveur noonu la ko charia bëggee nee na wuxu moom ndox la moo xam ne lazi lam yar du soppeeku law nuhu melowa ndox su melowa soppeekoo mënul sangu set ndox su melowa soppeekoo mënul jàpp déedéet ndox kenn ku ne xam na couleur am amul couleur ay incolore incolore amul couleur kon ndox moo ñëw ndox moo ñëw fekk mu xonq fekk mu xonq te cosaan ga cosaan ga soppiwu ko la nga ñëw fekk mu mu mu bëla nga ñëw fekk mu weex ndox moomu du mën a jàpp du mën a sangu set aw taamuhu ndox moo xam ne da ñëw fekk mu am cafka su léeg ndox yi daan jël kepp di ci def mu am cafka kon du mën a laab du mën a laabal aw taamuhu ndox moo xam ne soppeeku na cafka ga guuba dafa soppeeku mënul laab mënul laabal aw raxeetuhu mooy odeur ba ndox mu soppeeku ci odeur ci xet mënul laab ndax moom laabul te mënul laabal bi ma yu maa yufaariquhu ci kaw noteel nag ci kaw noteel xaaliban ci kaw noteel ci teqalikoog moom bi ma yufaariquhu xaaliban ci teqalikoog moom ci kaw noteel maanaam ndox moo xam ne ndox moo xam ne ci kaw ci kaw ci kaw dafa am diw wala ndox mi ci kaw am lu ca nekk boo ko tànqee génne ko la ca suuf bu soppeekuwul ci xet bu soppeekuwul ci cafka bu soppeekuwul ci melo mën na laab mën na laabal ndéem tonni nga ko bi ma ci li nga xamante ne yu faariqahu dina teqale ko ak moom xaaliban ci noteel ka zayti lu mel ni diw diw diw nga diw boo ko tegee ci kaw ndox dafay tëmb kon boo ko jëlee teggi ko la ci suuf mën na laab mën na laabal wa sëm ni wa sëm ni mba diw ñor mbaa diw ñor wa dësami wala nekk kulli yi ñoom ñëpp yu deme noonu wal wasaxi ak tër ak tër tër tër wa saabooni wala saabu wal wasaxi ak tëru jur wa naxwihi wala yu niroog moom wala yu niroog moom tabaarakallah wala baasa du aay aayul aayul ak turaabu ak turaabi suuf wal xamay wala ban wa sabxatin wala ndoxu ceeñ ceeñ wala xassi wala ndoxu xassi yooyu yëpp ay xeetu ndox lan yii dañuy nekk ci booru dex yii nekk ci booru géej yooyu yëpp bor ndox la wa naxwihi wala yu niroog moom tabaarakallah waaw kon nag macha allah ndox ngi noonu yi mën a laab ak yi nga xamante ni laabul ak yi mën a laabal ndox léeg-léeg dina laab te du mën laabal bi ñu soxla nag ci mooy ndox mu laab te mën a laabal ndox mu laab te mën a laabal du soppeeku ci xet du soppeeku ci cafka du soppeeku ci gisin l'eau potable doit être incolore inodore et sans saveur waxtu yu dab nañu kenn ko doon defal doon seen mbokk seen xarit xaadim seen asalaamu aleykum wa rahmatullah wa barakaatu. tàllal leen loxo yi gën